asalaamaaleykum am chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di am mbégte jàkkaarloog yéen fii ci Equivox TV bienvenue dans votre émission actualité tey nag ñu fas yéene waxtaanee lépp li nga xamante ni rek actualité la bu ñeel réew mi ci wàllum politique ma dalal ci nag koo xam ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal muy Djibi Diagne Solution a nekk vice coordonnateur bu Pastef Médina tey nag moom laa dalal fii ci Equivox fas yéene waxtaan ak moom sans ci li nga xamante ni rek moom mooy actualité réew mi tout d'abord balaa ñuy xuus li bi dañ lay daal di nuyu ziar la bàyyi la nga nuyoo bu ñuy seetaan à travers Equivox kontaan naa si disponibilité bi. Mhm. Euh, ci yonent bi di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yi ci réew mi ci diaspora. Mhm. comme ni nga ko ah, mhm. euh, président mouvement Yërmande. ba pare nekk ex vice coordinateur comme nee nañ di suivre nañ ko. parti bi kon maanaam mënatuñu wax passif uh-huh. parce que ñun dañuy topp peut-être li yoon wax ba ba ñuy gis leneen loo xam ne ne yoon teggi na ko kon ex vice coordinateur Pastef bu Médina di ñëw nag di ngeen dalal ñu fii ci Equivox ñu ñëw di wax suñu xalaat ci réew mi ak ci àdduna daal di nuyu ñëpp daal. kontaan nañ bu baax a baax di kontaan aussi tamit ci disponibilité bi comme noo koy waxee à chaque fois rek. Mm-hmm. Euh, gindi nga ma sax naat ndax dañoo tàmm di wax Pastef Pastef <laughs> ex Pastef waaye mu mel ni da nga mel ni da nga découragé nga de euh, ci li nga xam ni mooy Pastef parce que gis naa nga def vidéo gis ñenn ci patriotes yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dal sa kaw ci li nga waxee. Mm-hmm. nee nga Ousmane Sonko bu nekkee candidat ci réew mi euh, lu jaañu ndax soo nga naan mu mel ni yow découragé nga. lu tax loolu. non c'est-à-dire te nga gis nga dëgg alalu yàlla nekk ci combat terewul gis nen na nen a ngi nii jeune li ma ne Ousmane Sonko bu bokkee ci présidentielle 2024 yii lu jaañee ñi naxasu maa ko naan parce que wax dafa am dégg-dégg wax neex na mais dégg moo ko raw. parce que bu ñu gisee situation justice bi ni muy doxee ci côté Ousmane Sonko. ñu gis ne ni lépp dafa ne fàng te ñëpp gëmm ci parce que Ousmane Sonko li ko fa yóbbu de un ñëpp war nañ xam ne ne waru fa mun a yóbbu Ousmane Sonko parce que dañ fi gis ñu ne fàng def lu ne fàng te dara fekku leen ci mais depuis Ousmane Sonko il est là ci seen politique bi waa ci seen politique bi gis nañ ne moom dañoo acharné wu rek ci moom ci côté lu mu def lu mu wax lu mu nangam loolu nag moo tax man am jàngat ni man bu bokkee ci élection yi parce que lu tax ma ne bu bokkee. dafa lancé woon benn message que ñu bëri comprendre ñu ko. muy lan. message bi mu lancé woon avant ñu koy jàpp lu mu waxoon ca Ziguinchor nee na moom ak gouvernement bi doyuñ ko ndékki mais sénégale yi rek ñoo mën a tax ba duñ ma jàpp wala ñooy tax ba ma bokk ci élection yi loolu am na wala amul moom moo ko waxoon. moo ko waxoon. merci beaucoup léegi depuis deux ans bi ko nguur gi di topp pour jàpp ko ñan ñoo taxawal. les sénégalais. les sénégalais kon bu sénégalais yi seetaanee ko. bañ jàpp ko ba téye ko ñan ñoo seetaan sénégalais yi. kon da nga wax daal sénégalais yi ñoom ñoo ko ñoo ko sacrifié comme ni ko ñenn ñi di waxee. waaw ñoo ko seetaan daal xaw ma dañ ko sacrifié mais ñoo ko seetaan parce que ñoo nangu loo xam ne ne nanguwuñ ko woon 2021 fii la ñu fekk. bi ko sëriñ bi di ñaan sëriñ bi mais mais est-ce que tey loolu yëpp tey du indi li nga xamante ni doguma la euh, li ministre de ministre de l'intérieur doon wax naan ñi ñi doon génn mm-hmm. nekkul woon les sénégalais lambda mais dafa am ñoo xamante ni dañoo raxoon ñooñu ñoo doon génn. waaw loolu nag moom. est que tey situation bi ak ni mu demee nii du bëggal li ñu doon wax. déedéet lan la koy dëggale ñoom li ñuy wax da nga ne ministre nga ne wax nga l'intérieur. Antoine Félix Diome jeex na. ne na am na ay forces ñu. Ah, rax ñoo doon saccagé ñoo doon yàq. ñoo doon génn. waaw léegi ñooñu teg nañ leen loxo jëm nañ seen kéemtulaay kertan ba teg leen ñoom ñëpp loxo. Mm-hmm. mais après situation bi ni mu demee Ousmane Sonko ñëpp yaakaaroon nañ ne buñ ko jàppee maanaam dal bi du am ci réew mi mm-hmm. mais ñu gis ndët buñ ko jàppee mm-hmm. dara xewul mm-hmm. moo tax ma ne est-ce que loolu dëggal li ministre de la ministre de la l'intérieur doon wax man mënuma dëggal li nga wax noonu ci kilifa gi nga ne Antoine Diome ñan ñoo fi def communiqué ne euh, xale bi dee woon kii nu mu tuddati euh, Ngor Élise Gall la ko rey bi autopsie génnee lu mu génne est-ce que Élise la génne xale bi dee woon pët mbaaw te papam doon jooy ne maanaam yaakaaram la woon biñ ko biñ ko reyee lan la lan lañ def ci communiqué bi communiqué bi dañ ci bind ne euh, arme blanche moo ko rey papam génn ne arme blanche reyu ko bal pistolet moo ko rey génnee bal bi nijaayam wax kàddu gu ñaaw sax ci kilifa gii ngay wax ci Antoine yoon ne li mu wax loolu mënuma ci jaar ndax ñaaw na waa léegi te ñoom ñëpp ñu ngi dund lu tax ñoom mënuñ leen wax dara yow nga gis fii nii ñu def conférence de presse ay kilifa yoon taxaw def conférence de presse ne ñaari ñi xew ci euh, nu mu traité ci xeex bi fi amoon ma manifestation bi fi amoon ne ñaari nit dañoo yor kenn ki kalashnikov keneen ki yorul kalashnikov di daw di làqatu kooku bu ñu leen wonee Sénégal yëpp bañ tëj ci rajo tele muy Walf Fadjri lan lañ mujje ñun ñëpp la yaakaaroon ne ñooñu ay force lañ wala nàngam bi tubaab yi génnee lu ñu wane dañ wane nañ ña doon def noonu wala ña yoroon Kalachnikov si police bi lañ ànd loolu ko xanaa ñëpp vidéo yooyu lañ ba gis numéro 9 beeg yooyu. waa léegi nag yow nit dina ma wax lii man ma gisal ko sama bopp man ma teggi li nga gën ma ah, bëgg a gëm li ñoom lii di wax ku wax benn mu dëñ nga wax ñaar mu dëñ boo ma waxee ñett bu ma ko gëmee yow la engagé man laa wax nit mënumaa wax lu ma gëm lu dul danga may won ay preuve wax yomb na waaw léegi Pape Alé ñu koy saluer de passage. génneewul dégluwoo fii vidéo bu mu interviewé benn nervi bi doon ndax 40 000 lañ leen fay. ñu doon waaw waaw vidéo ba tey génnee gu ko nag jaay. waaw vidéo la génnee la joxe woon comme ultimatum. mais booba tey. Mhm. nit ñi dañ doon xaar sax amaana yàgg bi sax xaaruñu ko woon ci moom. Mhm. mais génnewu ko. waaw dama ne. lañ ko jox léegi moom kañ kam defal interview fu mu nekk yoon lu muy jëriñ bu waxee dara am na wala amul yoon lu muy jëriñ du dem gëstu ji ko. wala yoon moom ci mais est-ce que est-ce que tam dañ ko doon bàyyi ba mu génnee ba pare. déedéet déedéet dafa ne. ki doon wax dafa wax publiquement ne dañ ma fay quarante mille dañ ñu doon fay quarante mille pour ñu dóor ay nit wala ñu rey ay nit loolu kay ki ko wax mu ngi dund Pape Alé mu ngi dund. te yéen ñii di wax journaliste yi yéen ñaata yoon ngeen gis ay 4-4 yu weex. ànd ak ay nen euh, nu mu traité nervi ñu wàcc di génn di maanaam di doxantu di dugg biir euh, maison ki euh, xaw maison APR loolu xanaa fii la ñu fekk gis nga dëgg. alalu yàlla la moom kay da ngay ne nit ñi dañuy wax ne ne dañoo faral ñi bokk ne ñoom ñii nekk fii li ñu wax du noonu ñii li ñu wax du muy dëgg man nag li ma gëm Ahmed Suzanne Camara fan la waxee woon ne ne nañ rey Ousmane Sonko xanaa du ci réew mi du ci télé ne Ousmane Sonko dañ ko war a rey pour ñu am jàmm. xaadim sàmb waxul ne fii waa ji Macky Sall da nga war di jàpp di tëj di rey waxee wu ko fii de xanaa feneen la ko waxee Moustapha jaxase taxawul publiquement ne waa Ousmane Sonko ñii dañ leen war a jàpp ñii dañ leen war a rey loolu fan la amee kon ñooñu ñoom nekkuñu ay force occulte nekkuñ ay dara ñenn ñi nga xam ne ñooy force occulte mooy kon ñun ñun te lii ñuy jiiñ peut-être Ousmane Sonko mais 2021 fii la ñu fekk ñun ñëpp ñuy dundu bi Serigne Mountakha yónnee ndaw ci moom lu ko wax dama bëggoon teg lépp ci suuf munoo ko li nga wax loolu la ñuy def teg lépp ci suuf biñ ko jàppee dégg nga kenn wax gis nga Sénégal ñu bàyyi kàddu gi wala ñu bàyyi yenn taxawaay yi nga xam ne ne niñ koy waxee nga jéggal ma sax ci kàddu gi mooy naafeq dañuy gis lu ne fàng ñu bàyyi fa lu ne fàng di topp watit ba li gën a bon mooy lii dëgg nañ ko wax. képp mhm. képp ku nekkul ci yoon man émission boo ma mën a invité wala bu ku ma mës invité dama ne du ma nangu yàq duma nangu taal du ma nangu sàcc. képp ku nekkul ci yoon nañ la teg ci yoon parce que yoon noonu lay doxee d'accord na mais nag yoon bi nañ ko yemale ci ñëpp mais yoon boo xam ne ne yow ba nga déggee réew mi ak gouvernement bi mos nga dégg kenn ku ñu topp ñu sàcc sunu milliards yi woy yàqu naa fii la ñu fekk est-ce que yàqu na jabet bu yéeg ba léegi jabet wàccut ba léegi deux ans passeport diplomate ñenn ñoo ko doon jaay ñu bokk ci waa APR mos na dégg benn problème. mais ñun jàpp nañu leen quand même. nan leen mooy député yi ngay wax. waaw lan lañ leen def. bañ leen jàpp nañ leen ba condamné leen. ñaa bañ leen condamné lu ñu leen defal. ñoom ñu ngi ci loxo yoon ba tey de. waaye ma ne eh, ci loxo yoon de. ñu ngi ci loxo yu waaw c'est loxo yoon. loxo yoon boo xam ne ne ñëpp a comme ni ñu def Ousmane Sonko xam nga yow ñun ñëpp xam nañu Ousmane Sonko mu ngi ci yoon. Mhm. loolu moom leer na. waa léegi pourquoi moom ñoom seen mbir mënu leere noonu ah mais buñ ko ñuy jugé condamné na leen je pense que kenn ki condamné nañ ko deux ans dont six mois ferme lañ ko tëj keneen ki tamit la même chose léegi ban infraction lañ passeport diplomatique gu réew mhm. nga jël ko jaay ko di ci am ñaan fukki jabar ak ñeent fukki jabar ñu jël la ne deux ans plus six mois di nga moom mhm. deux mois wala six mois ci loo xam ne ne passeport diplomatique nga xam ne mooy suñu représentant foo dem ci àdduna loolu mooy suñu sac loolu mooy suñu sutura maanaam ñii ay diplomate France sénégalais la nga jël passeport yi di ko jaay ñu di tëj la 6 mois kii sàcc kii ay milliards faux billets plus de milliards ñu jàpp la nga ne yor ma benn 100 francs loolu la njëkk a wax ci conférence de presse ba mu yàgg ñu wonewaat vidéo boo xam ne mu ngi wax alkaati yeeg gendarme yi ne leen wuy yàqu naa. d'accord loolu xew si ci réew. d'accord d'accord léegi yow selon selon selon toi lan moo waral diggante bi sénégalais yi li nga xamante ne moom la ñu wax Ousmane Sonko mhm. ndigal la ñuy xaar ndigal la ñuy xaar. Mhm. mais lan moo changé ba tax Ousmane Sonko ñu téye ko euh, euh, te ñëw yóbbu ko si biir kotaan mm-hmm. mu feebar ñu yóbbuwaat ko hôpital. Mm-hmm. te dara yënguwut ba nii nii nii may wax ak yow. Mm-hmm. lan moo lan yan jàpp ni moo changé ci diggante bi. waaw li changé na moo tax ma ne Ousmane Sonko du bokk xam li may wax man sa la engagé jàngat laay def. mais ci biir jàngat bi lan nga yaakaar ni moo moo. non xaw ma lu changé xam nga nit ñi nag lu changé loo nit ñi doo ko xam nit ñi xam nga kenn ku nekk ak sa gëm-gëm. kin kenn ku nekk ak sa taxawaay. xam nga yaa ngi ni man yaa ngi may invité may ñëw am na ñoo xam ne boo leen invité du ñëw waaw wala déet te ñu ngi bokkoon Pastef mais man li ma gëm ak li may engagé loolu laay wax moo tax li may wax man la engagé gëwuma ci réew mii Ousmane Sonko di bokk ci candidat yi parce que kii li mu yor du ko bàyyi ba kanam la ci teg dañ ko xañ troisième mandat muy buur Sall buuru réew mi sa majesté Macky Sall nag bu APR laay wax waxuma beneen Macky Sall comme ñaari Macky Sall moo am. Mhm. man bu APR nag laay waxal muy politicien muy politicien kooku laay waxal. Mhm. du dëgg comme ñun article quatre-vingt pour ñun la ñun ñun les <laughs> ñun ñu bëgg Ousmane Sonko article quatre pour ñun la ñun ñoom laay waxal mais li ma jàpp ne ne li ñu mën a def. lu tax Ousmane Sonko nit ñi génnuñ loolu nit ñi la engagé man xaw ma ci dara mais je sais que ne sénégalais yi war nañ Ousmane Sonko seetaan nañ Ousmane Sonko moo tax fi mu nekk mu nekk fa. loolu na ma jàngat ko gis ko xam ne ne bu comme sénégalais yi ñoo ko taxawoon ba munuñ ko jàpp sénégalais yi seetaan ko bañ jàpp ko boo ma newaatee dina bokk du ma ko gëm am ngaa ci droit xanaa nag kuy gis. kon kon yow euh, ginnaaw ba leen ba leen DG xañee li nga xamante ne mu seen fichier euh, euh, kii parrainage yi bettu la. non man ma man lii dama man le premier laa def lii. wax gi le premier octobre bi ñuy door a laa wax ne man gëwuma waxuma dara man ba ñu naan ci yoon lañ jëm laa ne man gëwuma ñu dem ci yoon mu jox ñu dëgg gis nga yoon. dafa am kon recours bi tamit liñ leen ci liñ ko débutee tamit bettu la. dara bettuma ci. dara bettuma ci parce que gis nga DG DG nangama ci yem lu mënti doon li waa ji bëgg loolu lañu koy defal mooy buur li mu bëgg loolu la ñuy def. kon ñoo da nga jàpp ni ba tey eh, ñu leen ñenn ñi di wax naan Macky Sall ba tey dafa am mainmise ci justice Sénégal. ah xaw ma am na ci mainmise wala amu ci mainmise mais li ma wax moom fii la ñu fekk li mu bëgg loolu lañ koy defal. mais Ousmane nee jàpp nañ ko Ousmane Sonko lan lañ wax nañ ko jàppee du wax ci affaire Adji Sarr Adji la. mais bokkul la contexte yi bokkul. du jaawale jaay mais li indi charge yi ñu wax nii huit wala sept charge yi fan la jógee. ay contumaces yooyu fan la jógee. mais Adji Sarr waaw problème bi fa la démarré. fa la démarré waaw. waaw kay même saccage yi ñuy wax ak ak li ñu ne jàpp nañ euh, nu mu ay nit ak ñoo doon saccage ñoo doon yàq ñoo doon taal ba nga ne kenn yëngatootul fu mu jógee du ci wax gu Adji Sarr waxoon te nekkul dëgg waxoon publiquement dañ maa violé ah yor ñaari arme man mi ku ma xam je suis le premier. bu dem TFM défendre Ousmane Sonko kenn ñemewu ko woon défendre maa ko wax publiquement àdduna yëpp di ko dégg le 12 février 2021 kenn ñemewu dañoo woo ñëpp ñu fay seen téléphone man ma gëmoon na ni Ousmane Sonko nekkul kuy violé waxuma du juum nag waxuma du juum de day juum comme mëpp man damay juum keneen day juum kenn rek moo du juum muy sangawu tedd bi ku dul moom dangay ngay juum moom rek moo mot kon nag ma jàppoon ne ne buñ ne violé tànk kooku nit ñu ne violé ne moo taxaw publiquement àdduna yëpp di la xool nga ne mosuma lekk dërëm bu ma lew nekk naa 15 ans impôt et domaine. te loolu mu wax kenn ñemewu ko wax ñii nga dégg ñuy wax ay euh, nu mu tuddati ay euh, candidat lañu na kenn taxaw ne mosuma lekk dërëmu réew mi ku ko ci def làmmiñ dar dem gémmi loolu ma gëmoon nag ci moom looloo tax biñ ne viol am na man a mënu nekk viol. mais mais lan moo tax ba nga ko woowu ba nga ko woolee ba woowuloo aussi ba ko justice woowee. pour mhm. atte ko digganteemu Adji Sarr. Mhm. yow ni nga ko gëmee ni defut moom mu gëm ni defut lan moo tax tey ñëwul woon euh, fekkee boobu lee procès défendre ba kon amaana tey contumace bi nga xamante ni moom moo ko xañ mu mm-hmm. nekk candidat mënoon mm-hmm. na mënoon na bañ a nekk waaw léegi kon ñaata at ñaata yoon la dem tribunal kon li fi ne li fi jaar mu demoon tribunal non néew ma ma daawul dem tribunal mais bii dañ ko woo mun na la def seen procès ñoom ñaar ñu xool fan la dëgg féetee mm-hmm. mu dem Ziguinchor toog fa amaana peut-être bu ñëwoon moom bu ñëwoon présenté wu est-ce que tey jii euh, mun naa am tey lii ko xañ pour mu nekk kandidaa euh, mun na ko bañ a topp. déedéet mais contumace waru ci am contumace mooy lan ci tubaab ku ñuy wër te gisuñu boobu moom fu mu ne. mais est-ce que tamit état bu Sénégal proté parce que gis nañ Ziguinchor ni ko xale yi defoon aussi jamono yooyu. taxaw na Ousmane ko boo leen ko fi dee jël. Mhm. bakkan dina tëdd wala lii ak laa. est-ce que tamit du dañ doon protéger. Mhm. askan boobu tax demuñu jëli ji ko. waaw léegi dañ doon protéger mu ngi woon Ziguinchor waaw d'accord mu ngi woon Ziguinchor mais ba mu jógee Ziguinchor bañ jàpp ko fuñ ko ci yoon bi lañ ko jëli ji bañ ko jëli ji du ku Koungheul lañ ko jàppee biñ ko indee fuñ ko yóbbu. ko yóbbu këram këram ñaata fan lañ ko tëj. Mhm. ba léegi contumace bi day continuer kon gisuñ ko dafa réer te ñoom ñoo ko jël tëj ko ci këram maanaam cinquante cinq jours génnul demul fenn ñoom kon gisuñ boobu Ousmane ko jël nañ ko jàpp nañ ko mais gisuñu waaj gis ngeen caaxaan baaxut ñoom ba ñuy àtte dañ waroon xool ci li nga xam ne moo taxoon ñu koy àtte ñëw na ñëwul li mu li Adji Sarr waxoon dëgg la wala du dëgg du dëgg ñu jox lépp ne ko li Adji Sarr waxoon yëpp du dëgg lim lim ji ñoon yëpp du dëgg léegi ñu ne dañuy waxaat appel à l'insurrection xaw ma nu mu tuddee appel à la jeunesse ak wax yoo xam ne ne vraiment xel mënu ko nangu ak corruption de la jeunesse maanaam moo corrompe xale yi xale yi lan moo leen yëkkati mais wax bi dëgguwul bii Adji Sarr waxoon moo yëkkati woon nit ñi léegi Adji Sarr moom mu libre moom moom dara fekk ko ci moom moom mi waxoon ni amul moom dara du ko ci fekk. mais mais foofu moom foofu bi dafa dafa disqualifié fee foofu dafa disqualifié fee yi en corruption de la jeunesse newul askan bi la euh, wala jeunesse bi la la la la Ousmane Sonko corrompe mhm. mais Adji Sarr lañ comme moom dafa jàpp ne Ousmane Sonko daf ko violé juge bi disqualifié fee yi en corruption de la jeunesse ni maanaam da doon ñëw fi nga xamante ni moom mooy Sweet Beauté ci dara jaam ci gëddam ak ni mu toll doon ko jaay doole. waa léegi nag ñoom bu yoon waxee ci moom loolu. te Adji Sarr ci boppam ay vidéo dégg ngeen jéggi ko fi mun a li ma doon wax amul loolu du ci daal woowuñ ko ci yoon ne sëñ Mamour euh, nu mu tuddati euh, sëñ Insa euh, nu mu tuddati audio yu fuité woon woowuñ ko ci yoon. ne ko audio yu ba mu yeggee lu mu wax dama ko doon foye yow nga dem ba ci yoon ne dama doon fo léegi ngeen ne kooku di fo moom la ñuy gëm li soo Sonko gis nga caaxaan baaxul dëgg alalu yàlla la kenn gu gis nen na lii du nen yenn yi caaxaan la li Adji Sarr waxoon amul ñu jël loolu teg ko fële loolu mooy dëgg mais li mu waxoon amul ba pare ngeen bëgg taxawaat fii di wax ne ne di euh, corruption de la jeunesse daf ko doon noggatu waa du ko doon noggatu noggatu bi lim ci waxoon am wala amul léegi yéen gëmoo leen li mu waxoon ne amul ñu ne amul ba pare bokk ne daf ko doon noggatu nan la ñuy gëmee noggatu bi lan la ko noggata noggatu ba pare te li mu ko waxoon amul bu doon dajale ne daf ko doon noggatu di ko sàkku sàkku boobu existé d'accord loolu xel nangu na mais yow sàkku bi nga doon wax amul pistolet yi nga doon wax amul ba pare nga ne da ko doon noggatu lu mu ko doon noggatoo kon ah dafa ñëw rek di di ko xool noonu rek gis nga caaxaan baaxul nit ñi nañu andi nit ñi dañu am xel na ñoom. dofuñ jinne jàppuñu fii ci réew mi lañ ne di am xel di xalaat na ñoom kon lii dëgg nañ ko wax liñ ko tegoon amul nañ ko équité jox ko tous ses droits mu nekkaat ci yoonam loolu muy dëgg mais mais ministre de la justice moom li mu wax keroog leer na seen TV naa seetaan nga ko muy kii nga may wax ministre ban justice garde des sceaux ah kan moo fi waxoon ne nu mu tuddati dinañ séentu fépp Macky Sall ba mu des ci troisième mandat lan la fi waxaat dañ ko laajaatee mais loolu moom mënu ci abit ndax conseil constitutionnel eh, mooy mooy déedéet moo fi wax publiquement àdduna yëpp di leen dégg ñu interview ko mu ne maanaam dina wut 2 millions de kii pour ñu sampaat waaj wala loolu waxu ko fi woon ah. Ah. <laughs> léegi kon ñaata kii ñaata ministre la benn bi benn Ismaïla la mhm. wala ñaar la benn dana ah kon jeex na léegi na nga wax fii lii suba nga waxaat léegi suba nga waxaat li nga gis nga caaxaan baaxul ku mënti doon lii dëgg wax ko li ma a am wax ko loolu mooy dëgg mais tey nga waxee ni suba nga waxee ni nga ba pare suba ngeen ne man dinaa la gëm wala dinaa la croire mais loolu sama ku ko gëm yow la engagé man li may gëm mooy lii dëgg nga wax ko tey suba nga waxaat ko tey li may wax nii boo ma rayoon tamit lii laay wax li ma wax ci soo ko du mu ngi nii métti na nga ne patriote yu bëri ma ci mere parce que li ma wax dëgg dama ko gëm te dëgg la bu dul dëgg nañ dem àdduna ak sunu kanam. bu ngeen beneen recours. dugalaale selon les informations yu ma lire tey. waaw ma ne recours yi gis nga avocats yi les braves avocats dañ leen di xam nga ñoom mais est-ce tamit avocats yi tamit jotul tamit ñu maanaam euh, euh, comme ni yow ni nga demee yow en tant que. man euh, nit Sénégalais la rek xaw ma droit. sama gëm-gëm rek lay def mais gis nañ à chaque fois bu ñu dugalee ñu débuté ñu dugalaat bii ñu ngi wax le 14 octobre incha allah ci la ñu war a jot réponse finale pour xool ba xam Ousmane Sonko dinañ ko mën a dugalaat ci liste électorale wala déet mm-hmm. gis nañ Ismaïla Madior Fall li mu wax keroog nee na bu sukkandikoo ci article L29 ba suñu code électoral moom moo wax carrément képp koo xamante ne da nga nekk ci état de contumace mm-hmm. da lay rayee définitivement munoo munoo bokk ci liste yi waaw waa léegi euh, euh, nu mu traité ñi non non non non ah, tontu ma ci li ma lay wax nii. bu dee dee dañ ne dañuy génne Ousmane Sonko ci contumace waa léegi ñi sàccoon alalu réew mi ñoo ñu bàyyi leen ñu duggaat ci contu ñu ñu duggaat ci élection mooy ñan. ah mooy ñan ñiñ fi jiiñ ay sàcc. Ah, mais ñan la yoon waaye yoon xam na ko xam nga ko. xam nga xaw ma ko xaw ma ko dama lay laaj. tegu fi kenn ay daal. ñiñ bàyyi pour ñu bokkaat mais mais ñoo ñan la. ñoom ñi ma wax xam nga ko xam nañ ko amul ragal amul tey dama ne nit ñu wax ne ne dañoo jël alalu réew mi dañoo war a fay xam nañ ko muy Karim Wade ak ah, Khalifa Sall dañ leen wax ne dañ war a fay yoon daf leen daan léegi dañ leen bàyyi waat ñu dugg 2019 lu tax Khalifa bokk loolu la ki Karim Wade lu dañ leen jiinoon lañ leen jiin yoon daf ca waxoon léegi nag yoon ma waxoon nag léegi li yoon waxoon dañ koy teg mais àdduna ci waat de moom ministre de la justice. waaye yow kii du bàyyee Ismaël nee na waaw. maanaam li nga xamante ni moom moo moom moo moom mooy euh, comment dirais xaalis bi mu war a fay sénégalais yi maanaam li leen li leen condamné woon ci wàllum koppar mhm. euh, conseil constitutionnel ñoom ñoo yor dernier mot bi ci loolu ñoom ñooy décidé. Mhm. am ñoom am nañ droit def seen parrainage def yóbbu déposé mhm. les conseils constitutionnels mooy décidé. ba xam dina jàllale seen seen candidature ou pas. kon kay yow yaay ngeen seen bopp. kon lu tax mënuñu xaar ci droit Ousmane Sonko ñu de bàyyi ko mu def parrainage comme niñ ko nangaloo woon Khalifa Sall nanguloon ko Karim Wade ci 2019 bañ yegg conseil constitutionnel conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy arbitre dernière bi moom mun a confirmer dina bokk du bokk dindi nañ ko wala dindi wuñ ko Ousmane Sonko kenn waru dindi ci liste électorale yi six mois des élections am na lenn lu définitif ci condamnation wax leen ma. gis nga loolu définitif. non définitif a waaw léegi définitif ko ñu génnee ko. Mhm. loolu du doole lu définitif ko ba pare nag que gis nga lii mooy caaxaan moom bu doon dafa def définitif. yoon daan ko lépp définitif ñu ne génnee nañ ko à ce point d'accord nañ mais dara définitif wul ngeen génnee ko ci yoon parce que ñoom moom lañ ragal ci élection pour mu bokk ci élection parce que bu bokkee dama ne mbiri tactique leer ñoom ñëppay fori neew waa APR ak waa Bennoo ñoom ñëpp Ousmane ko bokkee midi laa wax gi leer loolu nag lañ xam loolu la ñuy bañ moo tax bëgguñ sax mu dem sax euh, nu mu tuddati conseil constitutionnel léegi ci man dañ ko waroon jox tous ses droits bàyyi ko mu dem ñu neel ko ci jàmm. bu demee nag ba ci yoon ba nga xam ne ñoom ñoo yor seen dernier mot muy conseil constitutionnel ñu ne génnee nañ ko ñu nit kon à ce point ñu seet beneen. pexe bu ñuy def. mais est-ce que boobu du trop tard aussi est-ce que tey jotul. yow ni nga conscient wee nii. xam nga depuis le début ñu ngi gis ñoom nanguñu wax plan B boo waxee ñu ne Ousmane mooy plan A mooy plan Z mooy plan lii. comprendre nga ba tey maa ngi lire article boo xamante ni Ngouda Mboup mi ngi ko wax ba tey Ousmane ko mu ngi ci mu ngi ak ay droits civiques am. effectivement d'accord mais est-ce tamit loolu ngeen ngeen ngeen fukki fukki maanaam du ngeen toog di ci loolu ba élection yi romb leen. te du ngeen am candidat est-ce loolu jotul ngeen ngeen ngeen ngeen xool ki ngeen di jiital. léegi loolu ci yéen la lu ñun bàyyee ñoo suñu cëggalu guy. d'accord ñun ñooy les patriotes ñun ñoo gëm li ñu gëm bu ñu toogee ba feema ñu ne yéen ñëpp li ngeen defoon perte ngeen ñun la engagé bu ñu demee ba ci dernier mois comme ñu ne Ousmane Sonko mooy suñu plan mooy B mooy C mooy D waaw léegi loolu ñun moo ko engagé bu ñu perte bàyyi leen ñu ni perte ñu nangu lu ñu bëgg ñu ni wala ñun kenn ku nekk dañ lay wax ne bët bii nga war a xoole xoole mais yow mais yow déjà yaa ngi wax naan gëmoo mu bokk waaw gëwuma ko ci yoon parce que yoon bi muy doxee ak yoon bi ma nekk dama ko gis moo tax gëw ma ne yoon dina ko jox dëgg sama ngëm xam nga bëgg ak dëgg ak yoon du benn man li ma gëm laa wax du lu ma bëgg de Ousmane Sonko mooy sama candidat mooy sama lépp moom laa bëgg te moom laay jàppale moom laay taxaw mais dama gëmut yoon bii mu dem fa yoon di ko jox dëgg parce que dama gis niñ ko jàppee ba toroxal ko ba jaay ko doole bàyyi ñeneen yi moom mënut a génn julli ji ci julli sax lañ lañ ko jàppee. mu génnoon julli ñu jàpp ko génn dem tribunal fu ko neex nga war a jaar ñu ne doo fi jaar Ousmane Sonko rek nga génn muy génn def tournée ñu ne ko doo fi tournée mu génn bëgg a dem jumaa ñu ne ko doo dem jumaa mu war a dem tribunal ne doo ko fi doo jaar fi fee ngay jaar lu ko neex nga xam ne ne buur Sall tey moom bi ñu koy woolu maître Abdoulaye Wade lu fu mu jaaroon sens interdit la jaaroo mais Abdoulaye Wade daf ko euh, bàyyi woon am sa chages euh, euh, kon nag ci man chages boobu moom lañ waroon defal Ousmane Sonko bañ yegg nag ci càppaandaw gi buñ ko nangulu loolu ñun la engagé buñ ñu gañee ñun la engagé ah na fekk béy way mbuus de. déedéet waaw kon bàyyi leen ni ñu nang ñu jël suñu kii yu ma suñu béy way mbuus suñu béy la ni suñu mbir la ah waaye yéen de lii moo gën a naqari nag ñun ñoo nangul suñu bopp ne kii mooy suñu candidat. bàyyi leen ñu ko mais mais mais dégg nañ trois candidats yoo xamante ni waa past waa ex Pastef du moins. waaw euh, ñu ngi koy wax. waaw tey buñ buñ nee El Malick am na problème ak justice mi ngi ko takkal blasé de. Bassirou Diomaye fay dañuy toppee Ousmane Sonko les huit d' inculpation mm-hmm. moom la ñu toppee aussi ki nga xamante ni moom mooy euh, Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. Mm-hmm. Guy Marius Sagna gars yi nag ñu ngi visé ci Guy Marius ndax moom ngeen moom moom ngeen ñun du li ma wax du balaa du see du dee dañ ne Ousmane Sonko mooy sunu candidat ñee dugal nañ leen pour li ñuy wax ne ne euh, nu mu tuddati janax day bëri pax sunu pax yooyu nag la ñuy seet léegi nag li ñu gëm dañ cay topp mais moom ñoom xam nga lii nag direction bi du ma direction bi direction parti bi ñoo doxalee nii man li may wax du direction parti bi de man sama ngëm-ngëm laay wax ne Ousmane Sonko bu bokkee dina ma jaaxal dina ma bett loolu sama xam ngëm-ngëm la mais ça ne veut pas dire ne li ma wax wala li ma gëm loolooy am mais nag sama ngëm-ngëm am naa droit ne gëwuma ko parce que yoon bi ma gis ni ñu fexe ba jàpp Ousmane Sonko bàyyi fi ay nit di wax publiquement ñu leen di dégg. ñuy def ay conférence de presse conférence de presse boo xam ne nit dafa wax publiquement ñëpp di ko dégg yooyu yëpp bi ñu xoolee bi ñu recouvrer recouper li Ousmane Sonko wax ak li ñu koy toppee yëpp nit wax na lu fi ne fàng te dara fekk ko ci. lii mais mais nangu tamit Ousmane Sonko daan na def ay appel à l' à à l' parce que. ku toll ni koo xamante da ngaa nekk un homme d'état bëgga a jiite réew. Mm-hmm. def publiquement naan mm-hmm. euh, def naa sama testament. tàggu mm-hmm. naa sama sama yaay dem naa sama kii. Macky Sall dañ koy deree drainer comme ni ñu defoon Samuel do xam nga yooyu tamit dafa nekk ay mbir yoo xamante ni aussi tam euh, maanaam en tant koo xamante ni da nga aspirer jiite réew. communication tamit lu bëri sax dañ doon dañ ko doon dañ ko doon xaaroon nañ lii en fait. Mhm. parce que koo wax mu ne Ousmane Sonko ñu communiqué baaxul. Mhm. xaw ma ndax yéen ñi nga xamante ni yéen a àndoon ak moom. wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jege woon daan mhm. wax ak moom wala la doon natt boppam. je pas est que tamit yooyu tamit joué trop tamit ci li nga xamante ni moom moo ko dal actuellement. waaw léegi ki ñu jiite kan ki jiite réew mi kan la. ku mi Dia. moo jiite réew mi. ku ko jiite. ki ko jiite kan la du buur Sall. waaw waxu fi woon nañ jël cent mille jeunes wala deux cent mille jeunes jëli ji waa ji génne kii bi tamit. non déedéet déedéet déedéet non bu ñu dem poser rek ngeen ngeen ngeen. waaw mais ci démb ngay fàttali koo tey tey xëyut ñëw nekk tey mm-hmm. démb tax ñuy ne tey démb tax ñuy ne tey di. wala lu ci démb dootul baax na aussi booy roy da ngay roy ci lu baax. déedéet booy roy da ngay roy ci lu baax dañ bugg a wane ne démocratie ak politique moo ànd ak lii politique bu dégg li ci amul kon jaru ngay sonn lu tax Ousmane. boo ci noppee waxoo ci jëfoo ci jaru ngay ne politique politique lañ wax. mbir mi du ci wax xam nga lan mooy mbir mi mooy jëf jëf bi mooy ndax jëf nga lu rafet wala jëf nga lu ñaaw yéen mii di wax buur sàll woote fii sans carte d'identité bi mu ne du wate nan la nga def ka waxoon du wate dañ ko dóor mu toog ci réew mi fekk la ñu fekk de wala loolu du dara gis nga yooyu yëpp pourtant dañ ko bàyyi mu jàll parce que dañ xam ne politique dafa am yenn yi dafa ànd ak yenn yi jaamu yàlla sax dafa ànd ak yenn yi du dëgg mais lépp nag. ci wax wala ci doxalin euh, ci wax yog yooyu amul problème xam nga luy am problème muy lépp démocratie la dangay wax sama xalaat ma wax sa xalaat nga wax sa gis-gis wax nangam politique moo ànd ak loolu léegi nag bu demee ba ci cëggal guy gi nit ñuy ñooy choisir bu ñu choisir nañ sàcc lañ bëgg mu jiite ñu ñu jox ñu fal sàcc bi nañu muñ bu ñu bëggee ne nit ku jub lañ bëgg ñu xool kenn ku jub ku mel ne Ousmane Sonko ñu teg ko ci bopp réew léegi nag loolu lépp luñ ci mën a def ñun la engagé sénégalais yi la engagé. sénégalais ñooy seet suñu destin en main nan lañ koy jëlee 60 ans ñu ngeeg indépendance amut lenn lu yokk ci ñun ñun ñàkkuñ dara ñun ñàkkuñ fer ñàkkuñ jaman ñàkkuñ or ñàkkuñ zircon ñàkkuñ pétrole ñun ñàkkuñ dara am nañ suuf am nañ terre am nañ parce que presque 75 sénégalais yëpp ay jeunes lañ te ba léegi ñun ñoo gën a dellu ginnaaw ci ci réew yi léegi loolu yëpp nag lan moo ñu ko teg dirigeant yu bon dirigeant yi jubadi comme par exemple opposition bi nga xamante ni gis nañ leen ñu dispersé wu ku nekk di uti sa euh, di béyal sa waar mm-hmm. est-ce que tey loolu du du du du ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy parti au pouvoir ñu am champ libre parce ko dégg euh, ci benn euh, entretien bi mu amaloon sax fa li nga xamante ni moom mooy RFI li nga xam ne wax na ko jàpp na ni candidat mooy gagné ndax am na majorité mm-hmm. gis nañ tamit démb parcelle wala samedi parcelle yi nga xamante ni noonu la meloon foo sànni mbàtt mu takk mm-hmm. est-ce que instant bii nga xamante opposition bi ku nekk ngi Euh, wax lii wala wax lee ñeen ñu ngi gagné terrain bi. effectivement opposition bi moom bu ñu waxantee dëgg rek ñun ñëpp waroon booloo seet li gën comme ni ñu defee woon suñu coalition Yewwi amoon doole loolu moom vraiment ñun dañ koy wax parce que loolu moo rafetoon te loolu moo gën ci ñun ñëpp mais aussi tamit mobilisation bi ngay wax ne Amadou Ba Amadou Ba mooy kan nga ne duñ ñu nee nañ moom mooy premier mi mooy kan candidat benn moom ñaata yoon nañ ko fal. ñaata yoon lañ ko fal nekk na premier ministre nekk na ministre euh, nu mu tuddati finance nekk na leneen ak leneen mos nga ko gis mu def patrimoine déclaration de patrimoine mosoo ko gis lu tax du def déclaration patrimoine sénégalais bu ti doon buñ la falee maire député lépp euh, ministre premier ministre da nga war a def sa déclaration patrimoine wan na ne lii laa am lii laa yor du ñëpp a ngi ne borom alal la man ne dégg rek laa ci ne ñu ne borom alal la ñu ne borom milliardaire nangam nangam xaw ma ci dara de. ñenn ñi naan këram sax am ah, kon jeex na kon yaa ngi dégg façon bu mu nekk léegi nag dafa baaxoon bañ ko falee mu wax li mu am ak ni mu ko amee parce que dañ ne inspecteur impôt et domaine ñu ne képp ku nekk ci yoon ci administration doo liggéey beneen liggéey beneen liggéey doo ko liggéey lu dul ci administration rek ngay yem kon yow bu dee am nga ci lu ci ni gars yi waxee fan ngay jëlee milliard amoo waajur bu am milliard amoo euh, euh, kilifa gu am milliard kon fan ngay jëlee milliard bu dee liñ koy waxal amut na def déclaration de patrimoine wax li mu am ak ni mu ko amee loolu mooy dëgg comme ni ko Ousmane Sonko ko waxoon benn kër la am benn oto ñaari compte benn bi 250 benn bi dara nekk ci biñ ko falee maire deful euh, déclaration de patrimoine Ousmane Sonko léegi Amadou Ba moom du def déclaration patrimoine mbooloo mi ngeen di wax ab Ablaye Wade amuñ waxuñ fi woon ne am na 2 millions de euh, euh, kii nu mu tuddati électeurs fu mu mujjee fu ñu ko yóbbu du touche gis nga yooyu ay mbooloo du wax gi dajale mbooloo koo jox xaalis mu ñëw benn ci man boo ma joxoon ma dem taxawal ko fekk gëwuma ko ñi koy dem ñëpp gëmuñ ko dem fekk ko mbooloo dajale mbooloo ñuy ne mbooloo maa ngi nii mbooloo bi ku leen jox ñu jël parce que nit ñi dañoo xiif nit ñi dañoo mar. da nga jàpp da ku ñoom bu ñu fayul kenn du buuse Ousmane Sonko rek kay génn du fay kenn nit ñu daw topp ko loolu kañ gisal ngeen ko seen bopp ci élection deux mille euh, législative fii la leen fekk locale yi fii la leen fekk nit ñi doon daw sax di ko jox ñëpp topp ko mbaboor gi yëpp topp ko ci barkeem ñu bëri falu ci ñu bëri am ci lu ñu bëgg mais ñoom ku ci fayut doo am mbooloo maa ko wax ku ko weddi ñaata yoon nga gis ñu dem meeting. wala ñu dem manifestation nga booy yi génn na ñii 2500 ñee 5000 ñee 25000 ñee tournée boo dégg dañuy jël ay nit fii di yóbbu feneen Ousmane Sonko rek ngay gis nu du woo kenn du dajale kenn fekk leen ma fii ñëpp fekk ko ñii dox ñii bërëngu ñii daw ñii seeti leneen loolu nag lan la parce que nit ñi li ñu gëm ci moom mooy dëgg alalu yàlla la gis nga ñii ñuy wax nii yëpp candidat du ñu candidat du ñu dara 6 ay 9. barki démb maa ngi dégg xaw ma Aly Ngouille Aly Ngouille moo fi nekkoon xaw ma kilifa de nekkoon 12 ans ci kii bi nguur gi léegi nag moom mooy sànni xeer di dal ci ñii neen maanaam euh, ñi ñii waruñ utiliser kon moom waruñ utiliser kon dañ doon utiliser kon 12 ans yi mu nekkoon ci ñoom moom ku baax la woon bi mu génnee tey ñee ñoo bon. muy yéen dama ne 6 ay 9. déggoo ma ne maam Joowu maam Boy Diawa Ali Nguy euh, nu mu tuddati euh, Mimi Touré ñoom ñëpp laa wax man laa wax ñoom ñëpp mburu kof ko fariñ nguru kof ko fariñ xoolal joxante loxo loolu Sonko la arrangé loolu moom la concerne joxante loxo ça ne veut yow bu duma la joxe sa loxo man waaw mais loolu du dara teewee du dara ah man kon nga teg ne ne man bu waa APR du ma nuyoonteeg ñoom wala du ma jàmmanteeg ñoom ñoom am nañ ci droit man waxuma bu ñu jotante loxo de nañu saafante nañu waxante nañu def mais dama ne ñoom ñëm mburu kof ko fariñ fariñ ña leen di defar man loolu laa gëm loolu laay wax man nga invité de invité woo keneen non li muy défendre c'est bien beau li muy def d'accord naa xam nga nit mën nga ko d'accordal li muy def mais du tere dama ne ñoom ña nekkoon foofu mburu kof ko fariñ man loolu laa gëm. loolu mooy honnêteté loolu mooy dëgg boo gisee ne lu baaxul neel baaxul mais yow bu lépp lu baaxul nga ne baaxul nga nekk ca doo wax dara bañ génnee la ba mu des ay 4 mois nga ñëw taxa fii di ne eh, nu mu tëddee ci bi waroo leen génn war a kii jeunesse bi dañoo sonn kon yéen jeunesse bi li mu doon sonn yëpp yéen a ngi leen doon dóori ay cours ñoom ñëpp benn lañ laa wax bu ñu génnee ñooy nekkaat ñoom ñoom ñëpp benn lañ maa la ko wax bu ñu génnee ñooy nekkaat ñoo ñoom ñoo xamante ni ñoom ñoom minante dem na sa ba ne jeunesse bi yéen a ëpp ci fichier bi kon xam na ne jeunesse bi ñoo ëpp ci fiche bi xam nga ñu njaaj moom dootu ci am parce que moom yeere woon na ko kon xamoo na la ca nekk kon moo tax muy appelé jeunesse jeunesse bi nag laay waxal ngeen conscient gis nga élection yi ñu jëm mooy tournant bu détermi euh, déterminant bu ñu war a góor góorlu ba 2024 sunu lépp commencé soppeeku comme ni ko Ousmane Sonko ko defee ni ñu ko yaakaaree ak ni ñu ko gisee ci moom fii daal le seul candidat idéal du si réew mi mun ki mën a teg raay bi lépp jub Ousmane Sonko la te moom laa gëm te moom laa jàppale leneen nag sama ngëm-ngëm wala sama gis-gis ci yoon moom am naa droit nag gisee wu ma ne d'accord moo ne loolu moom sama xalaat la rek mais nag li ma gëm le candidat idéal ci réew mi ñëpp gis ci seen bopp muy Ousmane Sonko impôt et domaine bi mu fa nekkee gisoo ñoom gisuñ ci seen bopp gis nañ ci seen bopp xéewal gi ñu mujj am yëpp ci waa impôt et domaine ku leen ko jox gannaaw yàlla grâce à Ousmane Sonko syndicat mosof am ku ko fa def Ousmane Sonko seen kii euh, prime yu bëri ku leen ko jàppale Ousmane Sonko lépp Ousmane Sonko xam nga Ousmane Sonko man fu ma ko nawee keroog dafa def benn discours mooy bi mu nekkee Ziguinchor sama rongañ dafa wadd xam nga lu sax sama rongañ wadd dafa ne dafa def benn euh, dafa visiter benn euh, société ñu war a fay 6 milliards ñu yëkkati 3 milliards war ko ku mu avance ñu génne un milliard cinq cent jox ko pour mu yóbbu ko ñu ñu jox leen ko pour mu yóbbu ko euh, nu mu traité trésor Ousmane Sonko ci boppam yor ordonnance su treize mille francs pour jabaram mënu ko jënd léegi nga teg ne ñi mu defaloon treize euh, six milliards yooyu bu leen newoon jox leen ma milliard duñ ko jox milliard te bañ a fay six milliards xel jëruñu lu dul xalaat de ci réew mi lañ nekk de. loolu mu mun ko def joxe ko versé ko ba pare moom am problème mu six am problème mu treize mille francs treize mille francs non kenn du Ousmane sonk non loolu nag man quand nit buy waxi day wax li mu xam ak li mu fekke xam nga sëñ waa deet waa moom xam nga nag kilifa la comme fekkeewu ma li ma fekkeewu ñëw ma ci osé wax quoi que ce soit aussi tamit nit buy waxit day wax loo xam ne ne di xel dina ko nangu ñoom ay kilifa lañ ñoo waxante wala wax na comme maanaam recevoir wala nangam moom ak sëñ Moussa Fall loolu seen diggante man yëguma ma li ma fekkee ak li ma xam daal li ma gis mooy ñoom dem nañ fa da ngay wax loo xam ne ëllëg buñ la tëralee ci pax sax nga ne lii maa ko waxoon lii maa ko assumé loolu mooy dëgg mais nag ñoom la ñuy waxante man fekkeewu ma ko yëguma mënuma ci wax waw na wala tooy na li ma gëm daal mooy euh, waa yeewi seen normal kenn ku nekk wutal yi boppam. c'est normal mais nag baax na ci tamit la ngeen defoon ba may leen doole ngeen fexoon ba def loolu mu may leen doole bañ jëlee fi nii. mais ñun nañ def suñu ñu tëjee waxtu bi xam nañu ak li nga xamante ni moom mooy remaniement président Macky Sall def. remaniement ba. remaniement gouvernement de ministériel def na ko même bu fekkee euh, liste bi génnagul sax mais ñu ngi jot ni change def na ay changement mais ñoom Amadou Ba daal la la téye comme premier ministre tey mais changé ministère bi ci léegi changement bu ñaata rémunération lan nga fi gis loo gis sa bopp yow gis nga ci sa oh waay waay ma ne 4 mois 5 mois remaniement ak ñàkk remaniement ci yem ñii daal remaniement ak ñàkk remaniement ci waay waa ji lu mu tànnaat tamit fuuse lay doon rek fuuse rek màngo fuuse yàqu rek ñoom daal instant bi ay màngo fuuse lañ dañoo yàqu luñ ci mënti defaat lu ci mën a fexewaat ba mànga ba ñoraat mënut am ñoom daal nañ leen fi jëlee seet ñu gën ñu jox leen réew mi ñi ci gën nag Ousmane Sonko la loolu laa ci mën a wax. baale nga tàggatoo ñu ci nuyu sénégalais yëpp. am chers fidèles internautes ñoo ko gisandoo tey nag euh, ñu amoon plaisir dalal ki nga xamante ni rek moom mooy Diagne Solution li nga xamante ni rek moom mooy ex euh, Pastef yaakaar naa lépp loo xamante ni rek waxtaanee nañ ko fi dina doon njëriñ ci yéen ñi nga xamante ni rek ñoo ñu seetaan di leen jox rek dig daje incha allah rabbi très bientôt ak beneen invité d'ici là portez-vous bien merci.